A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mbokki muridi ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziaré te jité suñu yow Cheikh Mouhamadou Mountakha ñaan ko sa borom yàgg ko fi lo te wëru ko ñaan ko Serigne Amdi di mom Serigne Modou Fall Menda Wa ñaan ko suñu yaakaar ji tegal ak Cheikh Fall Modou Aminata boleh Sa Fall ñu ngi koy ñaanal mbolé muridi ak julité ak ku leen yéene jamm. ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen siyaare tey tuubaa di yegul di ñaanal ñëpp te di ko sàkk yeen te ñaan sa borom nangu suñu ñaan ñun ñëpp tey nag dañoo fas yéene jëm ju tedd jo xamanteni day firndel waxi señ Moussa Ka joju muy wax ni Cheikh Ibra Fall amut morom sak na mbeur yu roy ci mom leral na penko ak som lu yaq dootul nox naxi lal dal ba sa Dakar jall gannaaw yoon sahar mbër mu banan ko kar Cheikh Ibra lay laaji pexé kii nag bokk ci mbëru rëy yi bokk ci kenn si état Cheikh Ibrahima Fall bi muy Baye Mon Ndiaye tombu del sëriñ Mon njaay li ma leen di bëgg wax ci moom nag maa ngi ko jëlee ci ki nga xamante ni mooy doomu xolom la ñu naan ko sëñ Malick njaay ndax ñu ñun ñëpp xam nañ ni ki nga xamante ni mooy Baye Mon Ndiaye tombu del bàyyi fu benn leer waaye am na koo xamante ni nag da koo doomu woon woo ko ne ko yaay sama doomu xol li doom di am ci bàyyi am nga ko ci man lu ab taalibi di am ci sëriñ am nga ko ci man te la ma doon liggéeyal Cheikh Rafal ba mu nangu ko wàcc naa ko mi ngi ak yow kon kooku nag bu waxee ci jëmm ji ñuy waxtaan lu lu lu fiable la lu lu lu la moo tax nag ñu bëgg leen jotale ay waxam ci ki nga xamante ni mooy Baye Mandiaye Tomb Del eh, wax na ni ba muy ñëw ci Cheikh Ibra fekk na Eh, Amon na keneen koo xamante ni moom la jëbbalu woon mu doonoon sëriñam bis la toog rek na ko damay dem kooku laaj ko foo jëm mun ko Cheikh Ibra kooku na ko bettu mu woon xamoon naa ne yàgg-yàgg fa dem keroog bi mu ñëwee fekk Cheikh Ibra Fall mu toog mbooloo mi mu ñëw nuyoo bi ko Cheikh Ibra gisee dani mbooloo mi nañ ko xajal ñu xajal ko mu ñëw mu laaj ko bu gàtt wax na ni noonu la ko daa wooyee na ko bu gàtt Moon Njaay ñëw nga mu ne ko waaw mu ko Moon Njaay xamoo ni maa la jur Moon Njaay xamoo ni maa la sama doom nga dama laa dénkaani woon rek daat ko si tegal ne ko keroog ba yàlla bindee aadama jox ma xalima bi na ma bindal nit man Cheikh Ibra Fall yow laa ci njëkk a bind moo tax na fu mësaanu toog danaan Cheikh Ibra Fall ma bind kon nag te li warna doy war nak moy kenn xamul ay mbokam nee na daa ma ñew day ngelo rek ma dellu kenn mënu la wax ma bokk ak mom mu doonon ko xamanteni nak ku yàgg jamono la ndax señ malik ndjay nettali na ne sëñ Moon Ndiaye tomb wax na bis ne moom ak señ fallu Mbacke ak señ Abdou Sakour ñoo da bokk ben lal badar ñoo bokkon ben lal badar ba yokku seeneen sax ne wax na ni Senghor si bopam mo len daan ñew da len indil ay buñu amé soxla di leen dimbali buñu amé soxla jogé si yéefar yi di ñëw ci mom motax bay Baye Malick néna bay na Baye tombu nyewe del néna kérok bi sengor ñëwé si sëñ fallu nako dama soxla réew mi sëñ Fallou dañ ko jox la jox la noo jox jox na la ko ndax xamé na la kon té lool yag na ko juñu muri ko yag dégg sama wax na war na xamné yag na wax ni kii di Blaise Diagne kii di leopold Sédar sengor ku xol seeni mbir xamni duñu ay nit kese kon euh firnde la ci lolu nga xamni bay mon model Ndiaye tomb del wax na Serigne Abdou Sakour mom nak mu wax ñom ñaar ñu yag lool ndax euh, bi fi Cheikh Ibra Fall di nek mom bay mon jay tomb del bu da bayal Cheikh euh, Cheikh Fall sasam manam bu dal bay bay sas ngir Cheikh daana bay sas tam ci wet gi ngir ki xam moy Serigne Abdou Sakour ta bobu Cheikh Fall mi fi nga fi cheikh rafal jugee 1930 sëñ abdou sakour la andal diko ko liggéeyal wax nañ ñi ñetti at sax yim ko ñëk a dañ ko eh, fi ne fi ñu toll ni de saw saw ñak yow kenn attunu ko lolu ko sëñ abdou sakour wax nga xamni daan wax naan tuxuwuma tuxuwuma xam naa fu cheikh rafal njëkk xamna fu mujj nga xamni mom gannaaw Cheikh Rafal sëñ Abdou Sakour mi mo nekkon yaakaaram tay ak ëlëk buñ mod jaay nak xel yépp dina dem ci lan mo waral tomb fa gebu fall man mi dem na fa ba tim ten ba nga xamanteni bi cheikh rofal daf len ko santone ngir ñu gas ko biñ ko gasé bis e, mag ñi naajee xëy ci señ moon njaay tombe del teel a ñëw tëdd fi nga xamanteni mo fa lañ jal suuf ci lañ doon gas fa lañ ko doon génné li may wax nak señ malik ndjay moko ko ci si micro lamp fall fm bi lol xew bi lol amé Mun mm, Cheikh Rafal Fall nekk këram laaj ndax fere yi ñëw nañ ñu ne ko ñëwaguñ defaal mu daal di jug na bërët daal jubali fa nga xamante fa lañ doon gasee teen bi bimu mu ñëwee mon jaay la fekk mu ci jallu suuf ji mu ko ana koku mu ne ko mën a mu ko ana fere yi mu ne ko de lay ndégg ko Cheikh rafal nak nag na ko Moon Njaay yankul ci teen bi ci la bërëmu nag daal di tàbbi ci teen bi ba ñepp di ciow ñi naan deena ñi naan deewut ci la nak wax na nañ ko jox mu tambalé liggéey cheikh rafal delu mu tambali liggey ba ma ngi ñew ñuy liggey di liggey ba ngon waxtu wacc jot ma ngi di wacc bëgg wacc bok mom mu ne ci biir na du wacc na fek gisul ndox du wacc ñu delluwaat nak wax ko ki nga xamanteni ni cheikh ibra si teunk rek cheikh rafal jógewaat kërëm ñew wax nañ ni bu ñewé jup na daara ji ak tangor wi ba laaj sax fi fan la ñu ne ko fi de moy daara ji xam loolu da daana dal sëñ bamba daana tàgg bay laaj ana keur sëñ bi mom sëñ bu mag bi nga xamni cheikh fall bi bi mu laajee daara ji jup ten bi agut. ndax dañ buma ma buma bu ma bi ndox mi day daw sama sama sama beuri day lo ndox mi nañ ma wutal sees da ngeen wax moor njaay mu genn bu dé version nak ki nga xamanteni moy bay malik am na ñeneen nag ñu nettaliwaat neneen ne kat keroog Cheikh Rafal amna wax yu mu ak mom ba bi mi bi bay mon Njaay di génn fekkon na ten bi beut waaw lu ci mënti am bi Cheikh Rafal ne nañ ko indi togu bay mon Njaay tombu del mo génn ci ten bi dem indi togu, bi ko Cheikh Rafal gisé na ko xanaa du ya newoon ci ten bi legi munu ko waw munu ko ma laaj togu nga dem indil mako ko munu ko waw munu ko kon tomb na del ndax ko tombagul ñeent la buñ ko tombee muy juróom téeméer loolu yëngu ci wàllum lasaar xam nañ loolu bu baax. Cheikh Ibra Fall xamal ko ni ñeent nga xëye wàcce juróom-ñaar téeméer loolu nag day garaat boo xamante ni Cheikh defal na ko bis Cheikh newoon na ko sama dënd bi yow laa koy wàll muy feebar boobu nga xam na ko daa daane lu bari. bay mon jay nako ko boo ma ko de attanuma ko Cheikh Fall xëccu ko taf ko ci dënnam nako wal na lako nga xamni momit da nako faral di daaneel wax ni kaani la daan jël dëbb ko da ko tux bu ko mësaan di daanel mu doonoon koo xamante ni nag junni la da jang amna so xamanteni neena bu mo ci tollé luma borom mu jox ma ta te Cheikh rofal ko defal amna ñu mësa ñëw si moom di sant ngir ñaan gum leen ñaanal mu leen de ki nga xamante ni moo tax yàlla bind ñëpp muy rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam lu ma wax man du ko dindi kon moom ñëpp la déggooloon moom Baye Mor Ndiaye Tomb del nga xam ni noonu la def di liggéeyal Cheikh Fall ba keroog bis ba mu fiy jógee wax nañ sax bi fi sëñ Abdou Sakkoor di bawoo en dix huit cent dix moom fekkoon na bis boobu bis bi sëñ Abdou Sakkour jógee fekkoon na mu wàcc liggéey bay Moon Njaay nee na Baye Maal Njaay nee na bañ ko bay xaar fajar jot ñu dem denc juko guddi gi yëpp ba fajar gi si la si la wax bay Maal Njaay jox ma sama yére nga xamante ne daal dellusiwaat na ko jox ma sama yére jox ko yére mu bëgg koo nettali dem sëñ Abdou Sakkour mënu ko yëg naa ko ñoom ñu ànd dem ba ñëwaat si sëñ Abdou Sakkour ba ñëwaat si la ko xanaa li ma def jaaxal na leen mu ne ko waaw mu ko démb de sëñ Abdou Sakkoor da doon dem àjjana waxoon ma naa ko gunge bu mu koy gunge bay waaja àgg Cheikh Ibrahima na mu gunge ak àgg bokk ci sëñ Abdou Sakkoor na ma dellul nga taxawu njaboot gi looloo tax ma ñëw nga xam ni eh, moom faatu woon na kon ñëwaat jamono waaye dem gi mujj gi nga xamante ni moo waral màggalam gi daa xëy ne Baye Malick Ndiaye lu jiitu lool sax. wax nañ ni wax na ni nañ ko jox mu jàpp ñu ne ko ndox mu yeeslu nga xam ne bu ñu yeesuloo ba pare daa digal ñu téye loxo ñu téye loxo mu daal di jug taxaw daal ni taxawaayu Seydina Aboubacar si lislaam mi ngi nii daal di toogaat daal di joxewaat ndigal ñu jox téye loxo bi mu joxaat téyewaat loxo bi mu jug taxaw daal ni bàyyil ñu bàyyi mu taxawaat daal ni taxawaayu Seydina Omar a ngi nii si lislaam noonu la ko defee na taxawaayu Seydina omar ngi ni defé ko na taxawaay sayyidna usman ngi ni defé ko na taxawaay sayyidna ali ngi ni nga xamni kérok nak li waral magalam gi ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci wéru gam da xey lay laaj bay malik ndjay ne ko tay la lan mun ko tay la altine mun ko lan ci weer mun ko ñaar fukki fan ak juróom ben mun ko suba mun ko talaata mun ko lan ci weer mun ko ñaar fukki fan ak ñaar mun ko de kon suba la wer bi di xey loolu ñi Astronomi, xam nañ ni ñaar fukk fan juroom ñaar ci la bi di xey mu ne ko waaw suba la wer bi xey mu ne ko kon rafet na suba rafet na bu bu ngeen xëyee suba si tisbar na ngeen ma def si penku ki nga xam cheikh ibrahim fall sama sang ba nga xam ni moom ak demam lépp da ko waajal mooy kenn si keno yi kenn si eh, état cheikh fall bi nga xamante ni day firndeel na cheikh fall du moromu kenn kon lii lañ lay indi woon ndax 10 minutes di mat di leen jox dig daje ba talaata bii di ñëw àllarba bii di ñëw allah ñu fas yéene waxtaane ki nga xamante ni moom it màggalam gi ñoom ñaar bis doxu ci muy sëriñ Abdoulaye Yakhine wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf.